yi may bi mënta nekk terrain boo xam ni lépp lañ ci football loolu moo tax dama créer benn mission tey normalement tey tey wala suba góor ak Marème Taxa dañ dem en en Turquie y a des partenaires yoo xam ne c'est des Turcs ñëw nañ fi ils ont visité les terrains et ils ont visité Tivaouane terrain yi fi am yëpp damay créer ay ay mini terrain terrain yoo xam ne ni terrain de foot yoo xam ne ni dans les quartiers ñoom ñëw nañ fi déjà ils nous ont amené le gazon ils nous ont amené des trucs indi nañu ma lépp léegi nag ñoom dañuy dem mission pour concrétiser li laa des dégg ñoom ñoom tey si guddi la ñuy dem tout ça dans le cadre du sport kon nga xam ne loolu kon sport bi lu ñu intéressé la parce que ñoom bu ñu demee sur place ñoom dañu ci jàngat leneen ak ñu li ñu am waate fii au moins convention ñu signé ak ñoom dañu permettre ñu mu def une vingtaine de terrain yoo xam ni jeunes yi dans leur quartier la ñu fekk par espace espace de de jeu donc loolu aussi c'est déjà fait ñoom bu tey su lañu jël avion pour dem donc loolu aussi ma signaler leen rek ne leen suñu volonté yëpp mooy fexe ba sport Tivaouane jiitu ci Sénégal c'est mon vœu man kuy football ak Tivaouane pour man Tivaouane moo war a gagné bu fekkee Tivaouane gagné man mun naa bañ a seetaan parce que loolu laa gëm parce que loolu laa bëgg xaalis bi nag. c'est pas un problème comme ni wax toujours nit ki loo bëgg bëgg loo bëgg boo joxee volonté bi rek am ko dañ leen di ñaanal rek pour ngeen góorgóorlu ngeen def affaire de fair play beneen bi ñu des on a commencé la coupe du maire xam nga la laa bëgg da ngeen fair play bugguma kenn fay waa nawetaan yéen a may déglu waa nawetaan dama dama ne entrée gratuite laa bëgg entrée gratuite entrée gratuite laa bëgg dama bëgg mu am ambiance parce que c'est la fête bu fekkee dafay nekk fête day day am ambiance fa fête boo xam ne da ñëw pour fay sa xaalis dootul fête voilà léegi am ngeen ay charge dinaa xool charge match yi naka laa koy gérer ma jël ko sous ma responsabilité stade bi jël naa charge stade bi doo leen fay ba coupe du maire jeex coupe du maire moom sa terrain moom sa football moom sa espace ba pare di fay fayuma kenn dama bëgg rek bàyyi leen nit ñu fubal mu nekk foo ku am temps ñëw seetaan stade au moins mu am ambiance ambiance boobu laa bëgg mu am ci biir coupe du maire bi ñoo xam ni loolu fi amoon je pense que nag loolu mooy li foofu laay yemale sax parce que jumaa jaa ngi dugg te bëgguma ko ne di wax en tout cas daa jàppale ni les séances de football seront gratuites ñëpp amul amul yu bëri les les frais je verrai avec les zones naka lañ koy gérer ba nga xam ne bu ëllëgee kenn dootu amati problème